Euh, décapage wu fila band bande filao bi dégg naa la nga wax ci mu mel ni dossier bu la bu la bu la yitteel la waaw dina la yitteel en tant que citoyen bu dëkk géejawaay parce que dégg naa doomu géejawaay yu bari ñu ñaawlu ko euh, mais yitteel na la aussi en tant que maire euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier là yow mii nekk euh, le maire de géejawaay waaw xam nga may mun a man dama bokkoon ci ay groupe WhatsApp ay suñu littoral ay suñu suuf suñu moomeel suufu dëkk bi doomu dëkk bi boobu ay affaire maire yëpp amagul ñu nekk fa di fa xeex li ñu njëkk a wax mooy en 2017 nañu dure de vie wu cinquante 50 ans la Guédiawaye waaye né en 67 2017 50 ans filao yi waaw dee nañu dugg na fii génn fi tappalay neen suuf si dooma lañ soxla woon waaye ci loolu nag il faut mu am yoon bi ñu demee ñaani Macky Sall pour mu signer leen décret ñu déclassé. bande filao yi dañ ko yóbbu ci bureau municipal. yóbbuwaat ko conseil municipal bureau conseil ñu voté Macky Sall ci délibération conseil municipal ville bu Guédiawaay boobu euh, may ci la sukkandiku ba signé décret bi bi mu signé décret bi nag ñu ne léegi kon filao yi kat. déclassé nañ ko léegi lan moo fi war a am ñu ne ay équipement dégg ay équipement lan moo fi war a am euh, voirie dégg nga loolu lan moo fi war a am habitation bi mu signé décret bi ñu ne léegi bande bi plus de cent cinquante hectares léegi lan moo fi war a am ñu ne voirie habitation ak euh, nu mu tuddati euh, euh, ak ak équipement commune bu ne wax nañ la équipement yi nga xam ne moom nga war a am ak ville bi ñiy wax école ñiy wax piscine xam nga li ma la ñiy wax clinique municipale ku nekk ku nekk ku nekk joxe say proposition ak kër sëñ Touba gi yàlla nag mooy dogal ñu dem ba janvier deux mille vingt deux li xew-xew. may li xew bi mu xewee ba léegi man ci réseau sociaux yi laay gis ñu naan. diw am na diw am na. daggal nañ diw daggal nañ diw jox nañ diw jox nañ diw ak diw jox nañ diw léegi-léegi ma toog jékki-jékki rek sama taabul ba biro ba ñu indi fa notification waaye man waa géejawaay bu ñu jox du a xari man ñaar ñaara a naqari may may mun a. Hmm. affaire dafa am mesure d'accompagnement dafa am côté boo xam ne dañ ne dañuy continuer ba léegi nii. Hmm. jëmbataat fa ay garab. am na environnementaliste yi ñoom loolu la ñuy kaas dañ ne waruñu reyee filao yi ba mu jeex même bu dee dañuy jéggi tali bi après saxal fa sax côté bi ñu def équipement yi ak dëkkuwaay ak yooyu d'accord nañu. loolu benn defuñu ko. ñaareel ba tamit mooy xam naa ne fii moom la ñuy demee la ñuy demee tribunal. ñi ñu wax ne ñoom lañ fa defal ay notification ay député ay ministre ay activiste ay SR. ay opposants. ay opposants <laughs> ay opposants opposants ñu bokk Yewwi. Mm-hmm. déglu ma expliqué la dégg nga li ma la wax. Mm-hmm. Maymuna 1967 bi waaye amee ba léegi am naa ay nit ñoo xam ni seeni doom dem nañ ba juddu fa ba am fa 50 ans ba sëtlu dañuy luyaas te président de la république moom moo woote ay ay eh, eh, eh, nu mu tuddati. Euh, Euh, logements sociaux ak Ablaye Sow cent mille logements sociaux. xëjoon na fa. waaw ndimbal njaboot. kan moo ko gën a yoyool waa Buun waa Yëmbal waa Géejawaay waa Malika waa Pikine waa Caaroy et cetera et cetera nan la Macky sal ak nguuram di jëlee lu tolloo ay cinq hectares sept hectares neuf hectares administrateur civil yi mooy ñam ñam ñooy ñoom préfet ak ñoom sous préfet. au détriment de la population ñan ñooy les magistrats sans notaire lañ leen daggal dëkk nañ sax ñan ñooy magistrats yi parce que yéenay atte ñu jox leen ñun suñu suuf suñu parents yi nag di louer di sonn nekk ci mbedd mi ay sans abri te yéen nga xam ni ministres yi sax yéen a leen ëpp salaire waaye ñooñu am nañ jafe-jafe fu ñu dëkk. les magis da ngay da ngay yóbbu dossier bi ci yoon. les magistrats am na am nañ jafe-jafe jafe fu ñu dëkk. député lu mu ndóol ndóol maire lu mu ndóol ndóol ba pare xam nga lu def ree reelu fam benn collègue bu ñëw ne ma ci sama collaborateur yi ne ma maire da am quota trente parcelles ma ne ko maire ou la mairie mu ne ma noo benn la rek ma ne ko déedéet si c'est la mairie ñun man du ma ko laal trente parcelle ci cinq cent mille am ñooy yeewoo géejawaay cinq cent mille personnes mooy suñu population ñu ñuy daggal fii nii di ko jox jàmbur yi gars yi di ñu jox trente parcelles kese c'est c'est injuste du ma ko jël bu dee nag c'est pour le maire soxlawuma ko man bëgguma mais da nga yóbbu dossier bi ci yoon dañuy dem ci yoon te président de la république nag Macky moom moom moom moo joxe foofu moo ko déclassé les équipements yi lii ak lii ak lii ak lii kër Sëñ Touba gi lii ak lii ak lii ak lii liñ koy wax nag du ma fi tudd ay dëkk naan li xewoon bërëb nangam la ñuy bañ mu xewaat fii dugg na fi gën a fi alerté nañu keroog te comme que dëkk bi moom gars yi duñu duñu du ñu artu te ku artuwul nag di nga àtte ku artuwul di nga àtte xaayaar na ku dégg séeréer wax nañ waxaat wax waxaat am na foo xam ne bu ñu fa tolloo man maay dem ba ca taatu géej ga man ameen ay dara bu ñu ma indiwul délégation spéciale dàquñu ñu ma ci diggante bi maay dem ba ca taatu géej ga képp koo xam ne da fa nekk yor fa ma arrêté la tribunal bi ñu fa def ak yooyu ay équipement la pour loolu population bi la dugg na fi gën a tous ces entrepreneurs yi nga xam ne nekk nañ foofu di fa liggéey bee boo ñu waajal seen bopp suuf si suufu géejawaay la. maire Géejawaay wax na Amet